maaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tour ak sa sant. vidéo bi nag vidéo de sensibilisation la contre le coronavirus. coronavirus wala Covid 19 feebar la boo xam ne dafa gaaw a wàllaate trop bu ñu sañoon nag mu yem fi donc mesure de précaution yi ñu waa ministère de la santé digal ma leen di ñaan yéen ñëpp ku nekk jël sa responsabilité respecté ko. feebar bi du feebar bu ndaw donc nag ñun ñëpp ñoo ci war a jug taxaw def li ci war ba mu génn fi asalaamaaleykum éviter lépp luy regroupement ci lieu public yi ay lépp luy contact physique vraiment ñu gën a bàyyi xel xale yi nag waaw renforcer règle d'hygiène yi yoo yeeg yooyu di raxas suñuy loxo ba mu set euh, te incha allah am nañ yaakaar ne dina fi génn ci nam gën a gaawee di ñaanal nag Sénégal jàmm rek xew fii jàmm rek di fi am incha allah prenez de vous yàlla nañu yàlla aar éviter lépp luy regroupement ci lieu public yi